comme on dit, Ces élections se sont déroulées dans le calme, souvent même dans une atmosphère bon enfant. Et c'est cela le plateau, c'est l'image que le plateau a toujours montré. Donc, remercier l'ensemble des acteurs qui ont eu à compétir et les citoyens ont décidé. Ils viennent de donner un mandat de 5 ans à la nouvelle équipe, un mandat de travail. Donc, nous sommes au service de ces populations. Ceux qui sont là le savent, ils verront que ceci, ici, c'est une équipe de travail. Ceux qui viennent de nous rejoindre rapidement comprendront qu'au-delà des casquettes, c'est le travail qui prime ici. C'est l'intérêt général, l'intérêt des populations. Donc, nous les invitons tout de suite, la main dans la main, à se mettre tous au service des populations du plateau, sans exclusion. je dis d'ailleurs aux conseillers que dès la semaine prochaine, parce que nous voulons que les choses maintenant soient face track comme on dit, nous serons en séminaire tout de suite de formation parce que nous sommes une équipe qui continue un travail, donc il n'y a pas de rupture à, à enregistrer. ginnaaw bu ñu sant yàlla gërëm suñuy waajur ñu ngi sant bu baax a baax a doomi plateau suñu kilifa yi ñu Adam, aada kilifa diine suñuy délégué de quartier représentant du maire on oublie souvent les quartiers Euh, askan ci ndaw ba ci gën a gën a mag leen di sant parce que Plateau wonewaat na encore li mu doon def nañ fi élection ba élection yi jeex lu nu lay xumbal gisuñu fi dara lu dëng loolu dañ koy sant sante ko euh, monde politique bi fi nekk mën nañu wute ay gis mais généralement quand même le respect est de mise te loolu c'est important kon ñu ngi gërëm askan bi dem nañ élection ci jàmm génn nañ ci jàmm euh, ñoom tabb nañ ñi ñuy tabb ñoom ñoo yor tey euh, en tout cas mission yeeg juróomi at euh, doxalal waa plateau ca la ñu bëgg ak ca la ñuy xaar élection nag buñ ci toll ku ci ngay indi sa liggéey wala say programme wala leneen ñu ngi sant yàlla liggéey bi dañ ko mos a ragal parce que lu même les premières yi ñu jëkkoon wax ay acteurs. yëpp koo xam ne war naa daje ñun. démb laa fii ne leen danaa ñaan sama naataango ministre de l' artisanat mu ñëw wax leen lan mooy programme état ci wàllu woowu mais bu ngeen jàppee ni plateau mooy xolu ndakaaru ndakaaru bi capital am na yoo xam ne day soppeeku ñun nag suñu mission du jóg di toroxal suñu askan. loolu it parfois matadi wala ñàkk xam sa mission ba fan la dem waaye itam mission da nga koy mët dañu dénk liggéey. il faut ñu nous il faut donc solutions alternatives parfois il faut casser les œufs pour pouvoir manger les omelettes képp may ci nga may donc c'est une vérité il faut que en toute responsabilité nous jàkkaarloog loolu

keroog bi ñu naan fale ba pare ku ci ne xamoon ne ndax fal na wala fal normalement liggéey ba door dañ ko officialiser rek tey moo waral semaine bi di ñëw fin de semaine déjà conseil bi yëpp dana dajal dajal def sa première session de formation parce que bu ñu la dénkee ab liggéey il faut nga xam lan la nan nga ko war a yore xam sa àq ak sa yelleef fan la tàmbali ak fan la yar xam ku ci ne lan mooy sa rôle. nee na priorité mandat bi lu muy doon d'abord la ñu tàmbaloon suñu askan dañu bëgg ba wote laal loolu lu ci yokkuwul warul wàññeeku lépp li ñu doon def ci lu baax buñ ko yokkul war nañu fexe ba du wàññeeku loolu mooy euh, rigueur bi am ci suñu gestion yi ko continuer ko pour mën a am koom-koom yi ñu mën a jox permettre ñu def loolu parce que mën nga am ay yéene yu baax boo amul koom-koom bi doo ko mën a def beneen bi mooy environnement cadre de vie mooy tey jafe-jafe plate il faut absolument ñu indi ci saafara loolu moom yàlla daf may daf ma baaxee ma génn ci élection amul benn acteur boo xam ne ma jàkkaarloog yow nga wax ma loolu waxuma la li ma nar de def kon tey damay sant yàlla parce que ku ci ne naa la xool ci que ba may wut wax naa la li ma nar a def bu ma yàlla maye kon ci loolu la ñuy dëpp euh, cadre bi santé bi maanaam lu baax lépp ñu koy continuer Plateau man nañu fier c'est la seule commune je crois qui prend systématiquement en charge doomam à quatre-vingt pour cent de couverture santé kii soo ko jublu ba ci kii mag ci askan euh, population kon loolu danañ leen ko éducation lañ doon def fas yéene nag Bébé Ndiaye benn la ñu ngi koy defar maam Yacine mu nar a mel na Bébé Ndiaye waaye bëgg nañ suñuy treize écoles yëpp mel noonu kon loolu gis it danañ ci bay suñu gaar éducation bi ñu def lépp pour yóbbu ko foog moo waral ay conseils yoo xam ne dañu nekkoon ci conseil bi ma leen di nuyu leen ku mel la El Hadj Karim Boy moo éducation et fas yéene continuer liggéey ak moom ci walou woowu parce que yor na ko yorin bu rafet avec engagement détermination def ci ay résultats yoo xam ne amul conseil municipal bu fi toog tey boo xam ne mën nga wax ne yaa gën a liggéey rek wala coalition rek ak jafe-jafe moo tax yëf yi demee nii kon mom inshallah man danaa def sama kenn ka kàttan pour continuer liggéey moom donc éducation fi tu yóbbu dañuy fexé ba gën ko yóbbu fu gën a sore te loolu moom maintenant bu ma fi nekkee defaat sama campagne dana xaw a métti dañu joxe waat ñun Sénégal yi ñun Sénégal yi dañu joxe waat adduna bi te li ñu doon vraiment mooy pays démocratique boo xam ne depuis suñu maam yi ba suñu bàyyi ñoo ko liggéey ba ñu toll ci tey loolu kon ñun ñii kenn waru ko sàkkane parce que ñu génn ci ay élection yoo xam ne da nga daan dégg ñu ne ministre de l' intérieur dafa far mënu ko organiser yi ni mu jaar macha allah. dañuy sant ministre de l' intérieur sant toute administration territoriale bi nga xam ne ci organisation bi ci matériel bi ci sécurité rek lépp vraiment lépp luñ taxaw ba muy yemb kon loolu day doy naa sant yàlla parce que Sénégal exemple la ci wàllu